ah kay kay kay kay foog nga wax kay jëlal ma sañse bi maa tournel maa tournel tournel défilé défilé défilé défilé Mimi Traoré nuyu nañu maa ngi leen di fay ci loolu jigi si tuuti sant yàlla sant yàlla di daw di góorgóorlu ah, ah. Uh-huh. Ah, tey initiative bi nga xam ne nag sa label def na ko noo ko gisee xanaa di ko rafetlu tey ñaanal ki jiite yëf yi muy euh, soxna Clara vraiment dañ koy ñaanal moom kenn amul fayam nañ ko bàyyeek yàlla mu fayal ñu ko ndax foo xalaat baax baax na ko rôle bi nga joué tey ci li nga xam ne nag moom moo di. Eh, non dañuy mos tuuti rek loolu nañ ko gàttal. non dañuy mos tuuti rek rôle bi nga xam ne joué nga ko ci biir valeur c'est pas du tout évident mu nekk xarit bu dëggoo xaritoo bu bu bu dëggoo jamono ji pour nga gis ko c'est tout un problème yow nga joué ko ak ki nga xam ne moo di Louise loo gisee. ni ma ko gisee mooy euh, li film bi tuddee boppam loolu laa fa def muy valeur. nit euh, boo bàyyee say valeur mooy nekkatoo nit alors euh, xarit mooy jur mbokk mbokk mooy lu ne ci àdduna donc euh, ànd dañ koy rafetal te nit looy woote na dëggu ci yow rek ñu koy wax ana ci film bi mu nekk sama xarit mujjee nekk sama rek loolu mooy àdduna rek <laughs> mais ñu fàttaliku ne la femme du président moo taxaw ni première dame <laughs> première dame bi ñu dóor takkal ko wujju kay buñ ko newati première dame di ko da daw dañ la takkal wujju rek nga daal di daw xool ma ndax damaa nuroog kuy daw <laughs> allez merci d'accord merci beaucoup miin nga